ami internaute Buzz SN bisimila seen acte du jour ñu doree ko ak kii di Cheikh Bara a gis nañu nag ba mu génnee ca prison ba la mu daal di feeñ bëriwul dara gannaaw ñaar ci apparition beneen ba nag mu daal di teew rek foofa ca diwaanu Touba daal di amal rek ziaram ca xalif bu tedd bi di Serigne Mountakha Mbacké ba mu ca jóge nag moom Cheikh Bara Ndiaye daal nay defub visite rek ci Serigne Abdou Samad Mbacké waaye nag yenn ci ay mu daal di yëkkati rek ak nekkinam foofa prison ba bokk na rek ci di wax gént ka nga xamante ne moom moo di Serigne a ci rek ba mu nekkee prison ba a daal di nekk ab feeñ goo xamante ni sax ku tedd ki rek daal dina koy feeñu moom Cheikh Bara Ndiaye yile kàddu mu daal di yëkkati rek jëmal ko ci nekkinam foofa ca prison ba ñu daal di wax ci Juan Branco gis nañu nag concert ba nga xamante ne Youssou Ndour mu nga ko doon amal rek ak ka ndaw ya doon le roi du mbalax daal di leen accordé rek deux minutes ñu daal nag na ay nit yoo xamante ni sax jot nañ leen a teg loxo rek a ñu doon yuuxu Ousmane Sonko ca salle a Juan Branco nag daal nay addu ci li ni mel moom ma bokk ca ñenn ñay layool Ousmane Sonko daal di rek taxaw tem ngir porter le combat lépp loo xamante ni rek laaj na ko moom Juan Branco mu tax taxaw rek ngir def ko des ci Ousmane Sonko moom ba léegi mu mel ni taskatu xabaar bi di Cheikh Yérim Seck daal na cay wax rek lu am am solo bokk na rek ci Ousmane Sonko ma nga xamante ne mu nga ca prison ba ba léegi moom Cheikh Yérim Seck mu nekk journaliste waaye tamit analyste politique jàpp ne kii di Ousmane Sonko nekkinam foofa ca prison ba dafay daal di sooxel rek lii di démocratie fii ci Sénégal moom yile kàddu la daal di yëkkati rek Cheikh Yérim Seck jëmmal ko ci Ousmane Sonko nekkinam foofa ca kaso ba mu jàpp ne rek li ni mel dafay dal di sooxeel rek démocratie fii ci Sénégal kii di njiitu réew mi di Macky Sall ca RFI ak France 24 dal nay àddu rek ci Ousmane sonk waaye tamit politique fii ci Sénégal moom dafa jàpp ne sax ni ñoom ñu ngi doxal rek lii di démocratie lépp loo xamante ni rek ay àq ak yelleef yu opposant yi la ñoom ñu ngi ko respecté àddu sax ba ci dissolution bu Pastef mu yor sax naan voies déposer recours daal di nay euh, mën a nekk rek nekkul décret boo xamante ni euh, dafa daal di euh, définitif rek ci li ni mel moom njiitu réew mi di Macky Sall mu daal di àddu rek foofa ca RFI ak France 24 daal di wax rek ci problème bu Ousmane Sonko ma nga xamante ne jamono ji mu nga ca kaso ba kii di Aly Ngouille Ndiaye gannaaw njiitu réew mi dal di tànn rek ka nga xamante ne moom moo di Amadou Ba ngir mu dal di doon candidat bu Benno Bokk Yaakaar mu mel itam a ci lépp loo xamante ni ay responsabilité la lu mu yoroon rek ca gouvernement ni daal nay ñàkkaale tamit ñenn ñoo xamante ni sax daanaka ñoo fare woon ak moom ca côté ni sax ñu ci bëri daal nañ koy tourner le dos rek moom di décider a ànd rek ba nga xamante ne kii di njiit réew mi daal dina koy jël kii di Khalifa Sall bokk ca candidat ya samp seen dënd rek ci élection présidentielle yu 2024 mu mel ni a gannaaw Amadou Ba ak tournée ba mu daal di def rek dem visite ca diwaanu Tivaouane mu mel ni li ni mel la Khalifa Sall daal di def rek a teew ca diwaanu Tivaouane daal di rek amal ab ziaram ca dëkk bu tedd ba laata rek ñuy amal bile gàmm bu ñu jogee ci loolu ñu daal di wax ci rentrée scolaire bi mu mel ni nag kii di Amadou Ba daal di nay daje rek ñenn ci ay acteurs yi nga xamante ne ñoom ñoo ŋànk njàng njàngale mi loolu nag. daal di teg yenn ci ay poñ ñu daal di cay wàññi sax lu toll ci fukk ak juróom-ñett yoo xamante ni rek teg na ko gannaaw ba nga xamante ne ñu ngay waaj rentrée scolaire bi moom nag daal di nay daje ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo gàllu bi les secteurs rek ngir teg ay directive jëm rek ci rentrée scolaire bi ngir lépp daal di mën a yemb rek laata ñuy ñu daal di wax ci leneen tunnel bu Soumbédioune mu mel ni wóoratul dara nit ña di fa jaar gannaaw ba nga xamante ne daal nañuy dañuy nemmeeku rek ay fissure ak ndox ma fa muy daal di jaar rek mu mel ni ah, bile pont wooratul dara waral nag ba ñi nga xamante ne ñoo dëkkee ci bile boor di artu rek ci askan wi ah, ñu daal di moytu bile yoon gannaaw ba nga xamante ni sax pont ba am nga ngay tàmbalee yàqu rek ak fissure ya nga xamante ne ñu nga cay nemmeeku rek ndox ma di fa jaar wax ci leneen kii di Soumboulou Bathily daal di nay réapparaître pour une première gannaaw génnub àdduna kii di waajuram bu jigéen moom nag génnaat na daal di rek nag euh, nekk en tout complicité ak kii di borom këram di Ablaye Diop Xaas moom Soumboulou nag ay kàddoom muy wax sax naan kii di waajuram bu jigéen daal di na koy manqué loola mu daal di doon ay kàddu yu triste yu mu dal di yëkkati rek ca kanam Ablaye Diop Xaas génnup àdduna Marie Guèye moom nag daal na jur coow a léegi rek gannaaw a gendarmerie rek patrouille ba nga xamante ne ñu nga ko doon amal ca lañ ko tege woon loxo waaye nag ñi di famiyam jàpp ko daal di traumatiser rek ba mu ñàkk bakkanam également yenn ci ay résultats autopsie tamit daal di génn di wax sax anam ba nga xamante ne noonu la génne àdduna waaye mu mel ni coow daal di nay jib rek ci ña nga xamante ne ñoom ñooy yëngu ci wàllub wér-gu-yaram bokk na ci kii di directeur bu suma assistance di Abdou Karim Gueye moom nag mu ngay àddu sax andi ab riposte rek ci yile accusation ba noppi daal di sax andi ab ñàkk déggoo rek ci yenn ci ay médecins yoo xamante ne yëkkati nañu kàddu ci génnup àdduna kii di Marie Gueye waaye métti ndax dañoo jàpp ne seen doom ji ñii di takk der ya ñoom ñoo ko daal di méttital rek ba mu génn àdduna ni ki tey 22 septembre moom a anniversaire bu Jean Paul Dalméda moom ni ki mu mel ni nag di famiyam ak ñu ngi koy fàttaliku rek ni ki tey di bésu anniversaire am moom Jean Paul Dalméda mu doonoon acteur bu ñu ràññee bu baax a baax génn àdduna gannaaw accident ba mu defoon rek ci loolu nag famiyam ak ñii di ay xarit itam di wéy rek di ko ñaanal di ko fàttaliku tamit ni ki tey doonoon anniversaire am Ngoy Fall daal nay àddu pour une première ci coom ak kii di photographe bi di Moustapha Ndiaye gannaaw version ba nga xamante ne moom génne woon na ko rek di anam ba nga xamante ne moom lañ ko daal di contacter rek ngir mu daal di amal liggéey ba mu mel ni nag kii di Ngoy Fall tamit dal na nay àddu rek gannaaw yenn ci accusation yoo xamante ne porté wu na ci personne ma moom daal nay andi ab version rek jëmal ko ci révélation yi nga xamante ne kii di Moustapha Ndiaye di photographe ba daal dina koy teg Wally Ballago Seck albumam ba mu mel ñu ngay gën a def rek bi les promotion kenn ca ñoom di wuyoo ci délégué Amar daal di dajale presse bi rek di wax ci album ba moom nag gis nañu ca soirée ba ak album exemplaire ba nga xamante ne mu nga ko jëndee woon rek benn million ci sunu koppar bi yoon nag nga dajale ñii a presse ba di àddu rek ci bile album nga xamante ni sax ñoom ñu ngay séntu discours Takku Door ci li ni mel gannaaw liggéey bu mucc ay ba nga xamante ne ak kii di Faramaren ba daal dina def ci bile album ñu daal di wax ci actrice bi di Ndeye Diarra mu ngay amal ay vacances am rek foofa ci réew Dubaï gis nañu image nga xamante ne daal dina koy partager rek mu daal di nekk de très belle moom Ndeye Diarra wax ci Boucher Ketchup mu mel ni soxnaam daal dinay accoucher rek foofa ca États-Unis moom Boucher Ketchup nag mu nga kontaan lool ci mbir ma yëkkati iPhone 14 Pro Max daal di koy jox rek kii di soxnaam ba noppi rek di xaar lii di baptême bi ñoom ñaar ñëpp nag jamono ji ñu nga foofu ci réewum États-Unis moom bu sekk cëpp ak kii di soxnaam Zahra Mbow la femme de Cheikhou Kouyaté nekk awam moom la ñu gis noonu rek ak image yu rafet yi nga xamante ne daal dina koy partager rek ci comptam mu nekk de très belle photo moom madame Cheikhou Kouyaté di ñu daal di wax ci Marichou la femme de Billy gis nañu nag image ya nga xamante ne daal na koy partagé eh, très bien habillé en robe eh, mu daal di doon style bu mu daal di adopté rek moom Marichou nekk soxna ci eh, acteur bi di a wax ci keneen Mbathio a toute belle toute ravissante ñu gëjoon koo gis lool mu daal di poste rek ay photo ci comptam bi yoon nag daal dinay réapparaître rek partager de nouvelles photos séduire bu baax a ñii di ay flowsam ñu daal di wax ci Aïssatou nekk ci série bi di loolee mu nekk une nouvelle série mu ngay amal nag ay délire ci tournage moom Aïssatou gis nañu vidéo yi nga xamante ne daal na koy partager rek lors des tournages de la toute nouvelle série di Cœur brisé le leader de la génération consciente di Pape Diouf gis nañu nag ne daal nay jël sax meilleur tube ci 2023 bi à chaque fois su génnee rek dafay daal di def bruit gis nañu Superman Love Beck bruit ba nga xamante ne daal na koy def rek ak place ba mu di ci fàttali daal di nay def rek quinze millions de vues a sept mois mu daal di doon loo xamante ni record sax lañ ko daal di tuppee rek gannaaw albumam rek ki na a suivre rek ci la ñuy wax ca diwaanu Liberté 4 kii nag ab di jóge rek ca ba daal di daanu ñàkk bakkanam mu daal di doon lu doy waar waaye nag kenn xamul lan moo waral li ni mel xale bi nag gannaaw mu jóge ca troisième étage rek daanu ca suuf dafa daal di ñàkk bakkanam teewul ñu ngay wéy rek enquête ba ngir xam lan moo waral li ni mel la jeexale wàllub tàggat yaram Nicolas Jackson gannaaw début yu baax yi nga xamante ne daal na koy def rek foofa ca diwaanu Chelsea mu mel ni nag moom dañoo daal di nemmeeku rek ne dafa dellu ginnaaw gannaaw but ya mu dugal bëriwul dara ak ñii di waa Chelsea teewul kii di coach ba di Pochettino mu ngay wéy rek di ko défendre di wax sax naan Nicolas Jackson nekk na joueur bu baax te fii ak ci kanam rek ñu gis yeneen jéego yoo xamante ni dina ko def rek gannaaw jamono ji nga xamante ni sax ñu nga koy critiquer rek ci nombre de buts yi nga xamante ne daal na koy dugal rek ak ñii di waa Chelsea. Lamb la ñuy jeexalee Ama Baldé gannaaw mu amal face à face ak kii di Modou Lo foofa ca diwaanu Gambie mu mel nag moom kenn gisaatu ko mu mujjee sax feeñee foofu ca Guinée Bissau moom Ama Baldé nag gannaaw daal di jóge rek Gambie jàll ba fa nga xamante ne moom moo di Guinée Bissau loolu lépp bokk ci préparation a combat bi ci digganteem ak Modou Lo mbokki internet yu Buzz SN lii lañ leen andi loon seen acte du jour di leen ñaanal jàmm di leen dig daje ëllëg incha allah jërë ngeen jëf.